mbokk yi ñu ni seetaan te di ñu seetaanee fii ci RTS 1 fu waay mën a nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar di sàkku ñaan di la ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq ñoo ngi nuyu diaspora bi yépp ñu nekk bitim réew tey safoo émission bi di wareefu jullit ñoo ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci biir réew mi di Sénégal ñoo ngi ziyaare kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di jël nuyoo beeg ziar bi di ko teg si loxo ki suñu borom nattu mu jiite réew mi di président Bachir Diomaye jaxaar mu joxal ñu ko mbooleem sénégalais tàmbalee ko si gouvernement am ba si suuf di nuyu suñu directeur général Pape Alé Niang moom mi nga xam ne moom la yàlla nattoo mu jiite kër gi di RTS ak mboolem directeur boo xam ne yaa ngi si suufam waaye mboolem agent boo xam ne yaa ngi xëyee ko gont ngir njariñu RTS waaye njariñu réew mi di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu def jàmm si réew mi ak naataange ñoo ngi nuyu mbooleem ñoo xam ne ñoo nga wan makkatal mukarram doon jooxe farata si faratay aj yi di nuyu suñu allaaji Ousmane si ak Mouhamed Lamine Diop ak mboolem koo xam ne RTS moo la yóbbu foofu si Makka di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq te yàlla nangul leen seen aj indiwaat leen si réew mi ak jàmm te sàmmal leen seen njaboot man ak sama consultant docteur Mouhamed Niang ñëwaat nañu ginnaaw bi ngeen ñu laajee suñu gan gii nga xam ne moom la ñu invité woon émission bi passé mooy al imam Cheybatul Hamdi Ndiaye wax dëgg yàlla retour yi am na solo lool def na émission boo xam ne ñëpp a ko rafetlu tey jii nag moom la ñu indiwaat si plateau bi di nuyu waa Pikine di nuyu Cité Lobet Fall mi nga xam ne fa la jógee di nuyu suñu kilifa suñu nijaay colonel Momar Gueye moom mi nga xam ne moom la RTS di nattu ak sas di firil émission yi si làkku li nga xam ne nii moom mooy làkku wolof ñoo ngi koy ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq te yàlla fayal ñu ko di nuyu sëñ daara yëpp di nuyu ustaas yi nga xam ñoo nekk si kër gi ak imaam yi di jël nuyoo bi di ko yox suñu bàyyi Ousmane Sarr mu séddaleel ñu ko bépp waarekat ak bépp yeetekat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 ak di ci teg ci nuyoo bi képp koo xam ne kilifa nga rawatina kilifa kër gi ñu nekk muy RTS ak képp koo xam ne yaa ngi yewoo fii RTS ak ci barab boo mën a nekk di liggéey rek ñu ngi lay nuyu te di la nuyu yow it imam di nuyuwaat suñu gan gi marratan uxra li nga xam ne suñu émission bii weesu moom la ñu indi woon mu waxtaanoon waxtaan wu ama am solo boo xamante ni yaakaar naa ni képp koo xam ne seetaan nga ko yaa ngi rafetlu émission boobu moo tax ñu ne niñ ko indiwaat tey Euh, mu sottiwaat fi loo xamante ni nit ñi seetaan mën nañ cee jariñu tey nag imaam ñu indil ko benn thème woo xam ne mm-hmm. dafa dëppoog jamono mm-hmm. dëppoog woote gi nga xamante ni président woote na ko mm-hmm. muy ni woo askan wi yëpp ci wàllum cet ak cetal kon suñu temu tey mu ngi jëm ci wàllum set ban importance la am ci wàllum l'islam ak l'islam naka la ko gisee comme ni lu kilifa réew mi woote la te l'islam it woote woon na ko démb ñaax ci képp koo xam ne jullit la tey buñ demee ba jëmmi jamono ñu am président bu mel nii ñu ne réew mi woote nañ loolu kon jaadu na thème bu mel noonu ñu toog waxtaane ko mhm. su ko defee képp koo xamante ni yaa ngi dëkk ci réew mi nga xam la ñu woote lan moo ciy taxawaayam ci islam ak l'islam yi naka la ko jàngalee mhm. ba képp koo xam ne yaa ngi ciy mën a dugal sa loxo jàpp ci mhm. xam fan ngay taxawee moo tax ñu woo ko tey macha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ko tawfiq amin ya rab jërëjëf consultant docteur Mouhamed ñoo ngi nuyu suñu caméraman yëpp ak technicien yi nga xam ne ñoo jàpp si émission ba mu leer di nuyu imam amar Touré mi nga xam ne moo ñu dalal fii si jàkkay Fann ok di nuyu waa Fann ok gépp di ñaan boroom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq comme ni ko docteur waxee rek suñu président dafa woote semaine yee passé set setal te l'islam da ko see jiitu ay siècle siècle siècle damay faral la wax ne réew mi bu taqee rek jullit ña ko taqal ndax jullit ñi ñoo fi ëpp 95 97 ay jullit lañu kon bu réew mi taqee rek ñoom la bu réew mi setee rek ñoom la kon setsetal googu l'islam nan la ko préparé ak nan la ko gisee ak kan la war ndax dafa war gouvernement dong wala individu bi wala kenn ku nekk am nga ci part de responsabilité ndax réew moom bu setee rek feebar dàqu bu réew tilimee feebar ñëw ferenkulaayu kon nag moo tax ñu indi suñu gan gu tedd gi nga xam ne gëstukat la imaam la waxkat la si lislaam waaye xam na lu baree baree bare bare si réew mi mu war ñoo jàngatal tom boobu incha allah muy imam saybatul hamd di ko dalal fii si RTS di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala mu defal ko tawfiq imam salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu sama saba ñu ngi wax billahi min alcheytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Euh, mbokk yi jàkkaarloo ñun ci biir réew mi ak biti réew kenn ku nekk fa nga nekk ñu lay nuyu di la ziyaara di jox sa wàccuwaay di nuyu mboolem kilifa diine yi ci réew mi kilifa aada yi di ci jiital suñu président de la république mu wàcc ko ci suuf jaar ci ñëpp ndax ñëpp fi ne moo ne bokk yilif mm-hmm. di nuyu Moustapha di la nuyu di nuyu docteur di rafetlu ànd bi bu baax ah, bu loolu passé nag ñu ngi ñaan yàlla li ñu fiy gaaral mu néew mu bari yàlla nañu yàlla defal jàppandal amiin mu jëlee ko ak suñuy xel waaye nangoo ko ak suñuy xol amiin ba am ci ridallaahi mi ngërëm yàlla yal ko yàlla defal amiin yaa jërëjëf docteur ñaata tomb la ñu waajal suñu gan gu tedd gi waaw imaam ñu ngi ko waajaloon ñeenti tomb mhm. tomb bu ci njëkk bi mooy nii lan mooy njàngaleem lislaam ci wàllum setu nit ki mhm. ak setu société mhm. ñaareelu tomb bi mooy ni yan mooy barab yi nga xam ne wala euh, mën nañ wax ni euh, majaalaat yi nga xam ne lislaam woote na ni loolu lu ñu war a yittewoo ci wàllum set la beneen tomb bi mooy ni ndax setal environnement bi لولو ريسبونسابيلتي غوفرنمان لا ولا ريسبونسابيلتي سيتوان اي بيغا خامني موي دوندو سي سوسيتي بي لا نينتيلو تومب بي موي ناك لا ني براتيغي والوم سيت با سينيغال انفيرونمان بي مو دون انفيرونمان بو خامني بو موتشو ايب لا تي والوم سيت ما شاء الله كون نينت تومب يوي موي تومب ييغا خامني تاي وقتان وي تي لا ورا ورا ما شاء الله آه. امام امام الاسلام لو مخ سي والو سيت وا شيخ مصطفى رك bala may dugg ci tontu question bi. Mhm. ñu def ben gendiku. ndax ben setantal ben setantal. Mhm. ndax mag ñi dañuy wax ni jege hôpital bi. Mhm. taxul a wér. dëgg la hôpital baa ngi sama kër gi nii. rek wér naa déedéet. il faut nga yëg fièvre nga. boo bo ni fièvre nga il faut nga nangoo dem ci hôpital ba. bo fa démé di nga déglu médecin bi. la mu lay prescrire di ko topp. Mm-hmm. boo ko toppee bu pare nag bu bu wér amee alhamdulilah su wér amoo seet feneen. Mm-hmm. dafa bëri maanaam feebar boo xam ne daf ñu dal ñun ñëpp mais yë duñ ko yëg. duñu wér duñ ko yëg. duñ ko yëg. Mm-hmm. jotaay yu mel nii nag. ci ngay yëge ni feebar nga man ci laa ko yëge ci la ko docteur di yëge ak ku ñuy déglu. liñ bëgg wax foofu mooy. balaa ñuy dugg ci question bi. Mhm. feebar bi ci boppam. Mhm. dafa yaatu. Mhm. te bu ñu ko waxee ku nekk dañ ci teg bët. ban feebar la. mooy feebaru ñàkk toppatoo ak set. mooy salte rek. salte. salte nag man maay maay ki jiitu man. ni ma ko mën a nit ki ci boppam. fi ne bëri kuy julli. yàlla xam ni bu ko yàlla jégalul amul benn julli bu wér. déet waay waaw. ko waral parce que wérug julli day aju ci set dinañ ci ñëw après. Mhm. mais nañ jàpp point boobu. Mhm. hôpital yi dañ fay faj. Mhm. wëral Sénégal demal ci hôpital bu neex moom ay pàcc fii nangam la fii nangam la fii nangam la fii nangam la. yépp day fees demal nga wàññi benn bu ci nekk ñaata toilette mu fa mhm. demal nga wàññi ñaata toilette mu fa am te yaa ngi ak ñu feebar ak ay nit ñu fa ñëw demal nga demal ko. Mhm. ci hôpital yi. maanaam toilette doyul. doyul. Mhm. te loolu mooy njëlbeen. demal ci institution publique yi demal tribunal demal feneen demal feneen demal ministre demal feneen demal feneen nga xool la fay dugg ci nit ñaata lañ nga xool ñaata toilette mu fa nekk. defal gëstu bi wala sax tuwaale dafa nekk aussi nga dugg sax doo mën a xoole jeex na ndax doy waar xam nga kon kon muy musiba mhm. lu doyul ba pare salte mhm. te loolu ci nit ñi bëri mhm. dama ci marché yi dugal marché bu la neex ci Sénégal ñaata tubaab yi fa ñaata koy liggéey. dama nga seet topp ko topp ko topp ko topp ko topp ko xam nga mais suñu yi suñu mhm. jàkk yi mhm. Dakar nga gis jàkk joo xam ne jumaa ña fay jullee mën nañ trois cent cinquante personnes mhm. soo compté toilette yi ñett ñoo fi nekk wala ñeent loolu dëgg dëggal déedéet juma doxandee mi ñëw yàkkamti ñeenti toilette ci trois cent et quelques personnes wala deux cent waaw akbar nga taw ñi doon xaar eh, gaawal gaawal di nga gën a lab fooy labe dama nga xool dugal suñ kër yi ku ci tabax kër su la yàlla dimbalu tuuti bu paasee maanaam douche ex euh, intérieur yi. Hmm. public bi benn douche moo fi bis bu amee xew ngénte wala dëj wala takk wala nangam am nga problème. Hmm. bu rëy ci suñ kër yi donc lii ay mbir la yoo xam ne boo ko seetee ci tàmbali bi rek. Hmm. moo la war war ne dañoo tardé lu bare bari bari ci wàllu ci wàllu set. yaakaar naa loolu leer na. nañ waaw donc léegi nag loolu laa doon def benn diagnostic. bismillah pour ñu dugg nag léegi ci li nga xamante ni mooy question bi question bi lan la. l'islam mhm. ni mu gisee set. jërëjëf. islam ni mu set. dafay nekk ci individu bi nekk ci boppam. Mhm. set nag ñaar la. Mhm. dafa setu biir. ñu koy tuddee tahaara batiniya am setu biti ñu mhm. njëkk bu amul mhm. bu ñaar bi du gaaw sell mhm. nit dafa war set ci biiram mooy set ci ay jikko yu bon te loolu day tàdde nit ki am jikko iñaan jalousie soxor xeex nit yàqal nit ñee nit liggéey nit yàq nit jëw nit yooyu ay xeeti salte la la ilaha ci biir doomu aadama bi mhm. yaakaar naa ni ay njëkk wàcc mhm. boo génnee iqra ñëw ci yaay mu desir mhm. xum fa anzir wa rabbaka fa kabir lu ci topp lu ci topp wa siyaabaka lu ci topp ci ay njëkk wàcc sa yi laabal ko ñu jàpp ni yére yooyu bala muy nek li nga sol nii. mooy sa sa bir ni nit da bala moo sol yori set mom day sangu. xam nga xam nga wali basu taqwa. hmm zaalika khair baasu taqwa. hmm li nga sol mu rafet lol nako nako sol nako xol bi sol. hmm koku wax la demal ci alquran alxuraan hmm ñaata aya mo lay wax wàllu laab te bu koy wax waxul labu bitibi mel labu bi lay wax. hmm اخرجوا على لوط من قريتكم بتوب انهم اناس يتطهرون يتطهرون تي لان تي ايرل اناس يتطهرون داني لابل سن بوب تي جيكو بون دون ديف غور جيجن دون ديف جين دون ديف لنن الله اكبر لول لول بيري اها بيتي بلا اها لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان ان يتطهروا يتطهروا est-ce que loolu yaram bi la. dañuy def tatahur ci ci ci ci ci shirk ci kufru ci bon ci lépp. Mhm. kon ay yooyu yëpp laaw biir bi lay wax. Mhm. bu loolu leeree nag mosuñu ci laaw biti bi. Mhm. muy yaram wi. yére yi place bi. yaa ayyuhal lazina amanu izaa xumtum li salaati. faghsilu لكن لون وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا كون لي لا بيتي نون الله اكبر غينا بو لي غينا بو لي نيوي ما شاء الله لا بيتي بي نك لا لا واخني لا بري نكو جولي جولي ويرول يالا منو كنغو نك هناك فرق بين الصحه والقبول دغ واجي منا نيو jàpp normal def lépp julli. Mhm. ñun ko si julli gi wér na. Mhm. parce que ci sharia. Mhm. wér na mais ndax yàlla nangu na ko wala déet. kooku beneen affaire la. kon ñu bëree ngi julli. bu yàlla nangul seen julli seen julli wérul. parce mooy laabu yaram bi ñaata nit ñoo xam nan la laabe. ñaata ñoo ko xam. dugg toilette nga gaanuwaay wéccaxu sorcier rek gën dem ñaata góor ñoo ko def. ak góor ñoo ko def. ak maa ngi ñu jigéen ñi. Mhm. ñaata góor ko def. bari na lool. Moussa nga baal ma. Mhm. gis nga góor goo gis. Mhm. mu toog juróomi fan. dem sangu fo fóot siliba. weer siliba wow wow koŋ mel ni dakande loolu ñu tuddee karadam. maanaam fóoti tubéy bi mu woowee mu wow koŋ mel ni yet mel ne lu ñu gome mel ni lu gome xam nga lu waral loolu hmm. la doon génn ci mujjug sawam ñu koy wax wadiyu hmm. nit bu sawee xaar hmm. tuuti defaru lay mujj génn day tax loolu bu génnul mooy taq ci silibu nit ñi ba boo ko féetee muy wow kon kooku na xam ni loolu mu julli am am biir jigéen ñi moom duma dugg ci duma ci dugg bu baax

wala sa yére dem ba ag fo xamanteni même bu amul sobe ana xet xet lo xamni ne kenn mënu ko supporté dama koy tooñe toujours sama mbok sama yéen mbok yi fële ma nekk dafa am ben bis benn jàkka du fi yeb yëpp nag mhm. suñu mbok yi jul ju bax dañu dem séance liggéey fi mhm. bu buñu wacce dañuy yàkkamti dañuy yàkkamti ñu jul si jumaa ji gaawantu jàpp ñoo yee soccu waaw moo tax yent bi dafa jar nga dégg sallallahu alayhi wasallam ñëw ndeysaan dugg si yow seen soccu soccu te ni normal. xet gaa ngay xet gaa ngay am ci ñoo nga ma mhm. xam nga mhm. sol ay caaya. Mhm. xam nga caaya day jël ngelaw caaya day jël ngelaw bala nga xam ngay lay def ci ak il faut nga am xet. allahu akbar booy booy ruko caaji daal vuu. di nga lor ñu bëri daal benn ngelaw boo xam ni sàpp bi day day daanu suuf. allahu akbar. boo paree taxaw di ñaan. ndeysaan yow ree nga ni yow pare di ñaan. kon yére yi. Mhm. nañ koy jël di ko bàyyi xel. Mhm. bu ñuy julli ji jàkk. allahu nañ dem suñu ko toilette président du fi war kenn ngay ngay li nga jël li nga jël séras. Mhm. te yàlla ngay wujji. wallaay ndeysaan. kooku seet la boo xam nañ ko bàyyi xel. dëgg kon wax naa. biir yaram bi ak biti bi wax naa biti bi mhm. mu des lan place bi palace bi am bi environnement ñëwagul mhm. sa kër mhm. sa néeg surtout les les jeunes juróom fukki jeunes yow yow wàññi boo duggee seen néeg yi da ngay a lu jaxaso ay célibataire la ñu doon célibataire la ñu doon am sax ay ay mari yoo xamante ni lee la xam doon loolu dafa war a set. Mhm. bu néeg bi setee day wàll ëtt bi. dëgg la. bu néeg yi rek ëtt bi set. bu ëtt bi setee rek buntu kër gi set. bu setee koñ bi set. laay bu koñ setee commune bi set. Mhm. ñooy ñooy jóg nag fekk si président Diomaye Faye. ci li mu mhm. wax. ànd bale réew xam ne bi ñëw di bale yow set nga. Mm-hmm. sa kër sa <laughs> mbaa du am na ku ñëw di bale fekk moom <laughs> moo war a bale moom <laughs> allahu akbar fi ne ñu ah. war a bale waaye déet waay maa la wax lii ah. kon njëriñu woote président bi man foofu laa gis mm-hmm. kon daal ci gàttal mm-hmm. yii feek bàyyiwuñ ko xel dañu am jafe-jafe kon li président bi woote na commencé fii jaar fii jaar fii ñëw ci réew mi dem ba daj au niveau national. Mhm. du Rwanda nga léegi Rwanda. Mhm. ñaata xeex moo fa ñaata lañ fa rey. allahu akbar ñaata nit kenn xamul tey dëkk yi gën a set ci àdduna bi ci la bokk. dañoo volontaire wu di ko def. dëgg la kon daal ci gàttal. macha allah boo tooyee docteur moom. macha allah docteur bul sori. docteur suñu mbokk mi de fi mu jaar am na solo lool misaal yi mu joxe tamit yaakaar naa sénégalais bu nekk boo ko xoolee gis ko boo ko lambee daj ko. docteur bismillah waaye maam xam nga lislaam dafa doon diine joo xam ne mhm. diine melul ni moom mhm. suñ mbokk mi wax na ko léegi mhm. ndax lislaam xam ne ni nit ñi nga xamante ni ñooy génn ci société bi la jëm te moom nit la taxu koo jóg mais day bàyyi xel société bi mais xam na ni li muy defar foog mu tàmbalee ci nit pour société yi mën a jàkk moo tax ni dafa da nga gis ne dafa concentré wu ci benn côté ci nit xam ne nit ki moom li ko lislaam bëggee bu ci nekkee rek boobaa environnement bi lislaam dul ci sonn dina xamni nit ñi ñoo defal seen bop bala muy ñëw allahu akbar yonent bi sallam ci xadis day wax ni inna dunya xulwatun xadira wa inna allaha mustaxlifukum fiha fata kayfa taamaluun adduna bi dafa naat yàlla jël leen indil leen def leen fi xalifa bàyyi leen di leen seetaan nag nu ngeen def xam nga léeg-léeg nit ki mën na seet toog fii gis nit ki romb def li muy def ba pare sànni ci tali bi dem te yaa ngi koy seet mhm. gis keneen ko romb koo xam ne day ñëw jël ko dem teg fële mhm. yaa ngi koy seetaan mhm. suñu borom subhanahu wa taala lay doxalee l'islam bi mu bëggee société bi jakk dafa ñëw wax nit ki foog a seetal sa bopp ba pare boo seetalu sa bopp fa a nekk mënta set loolu moo tax ne yonent bi sallallahu day wax ci xadis ne inna allaha نظيف إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظيف كريم يحب الكرم جواد يحب الجواد منيف فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود يلا كسل لدفا بقلو سل كسل لدفا بقلو سل كتابلا ولا كباخ لدفا بق دفا بقلو باخ كتابلا بقنا كيف كو يتابي بمدفع لولي يبنك مني ديلن ستل سين أتي kon nga déggee ci na ñàkk a biir ëtt mhm. lépp lu nan tabe la mhm. amoo ko yow lu nan set dàqu na ci yow mhm. lu naan ak mbaax dàq na ci yow mais leen lam ca teg man moo ma jaaxal wala tashabbahu bil yahud bu leen nuróloog nuróloog yahudi juif yi te léegi boo xoolee ñoom ñoo ñu gën a set ci côté dëgg la ci li feeñ ñoom ñoo ñu gën a set ci biti nag beneen ci biir beneen affaire la mais li nga xamante ni moo feeñ loolu da ngay gis ni ñoom ñoo ñu gën a set mhm. ci waxin mhm. mais ci wàllum mbir nag bu fekkee ni lislaam yoroo ko mhm. mënoo set setum biir kon ni lislaam dafa yitte woo setum biir ba pare doogoo yittewoo setum biti kon nga gis ni li nga dencul ci biir mënoo ko génne làmp bii di la jox leer dafa am lu mu denc ci biir loo xam ne courant bi moo koy alimenté mu mun koo feeñal bu jëlutoon leer ba mu a koo génne kon nit ki nga xamante ni setul l'islam lam ko jàngal defu ko kuy julli du japp mhm. bo waré sangu farata du sangu farata bari na ñoo xamanteni xamul ñu waral sangu farata mhm. léegi loolu yépp nga koy doxale mhm. yo do do sentir do sentir ne salte amna? na dëgg la loolu motax l'islam dafa ñëw nañu dé len soccu ngir ni gémmiñ day xey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yewutem ak ci mën a dafa musa and ak sahaba yi ñu wara ñibisi mo leen na ngeen defaru ndax ci ay nit ngeen jëm moy ni bëggul ñu yobale fa xat Mm-hmm. bëggul ñu yóbbaale fa ay karaw yu jaxasoo mm-hmm. moo tax chaque jour foo ko fekk mi ngi ak peñeem moom sallallahu moom sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ak mm-hmm. soccoom ngir ni gémmiñ noppi gi muy noppi waxul dafa am xet boo xamante ni moom lay jël léegi nag salte yooyu nga xam ne lislaam am na lu mu indi pour jàngale ko loolu mooy tax ñun bu fekkee ni def nañ ko luy feebar du ñu dab nit ki bu fekkee ni mi ngi socc di raxas gémmiñam mm. desitu lekk yi des ba xeeñ ba waral lenn yi bu jàllaatee mën na waral feebar bu fekkee ne duy wat ay karawu poqotaanam ñaq ya fay dajee mooy indi ab xet te xet noyyi nit ki mën na ci jëlee feebar ak yu bëree bëri loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam fa la ko jaarale bu ko defee société yu mën a set loolu moo tax l'islam lu ci bëri la ci wax boo xoolee ci wàllum société tey wax na ne al imaanu bidun wa sabuna aw bidun wa sittuna shubatan ba dekti ne fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al an il tariq allahu akbar la ci gën a oyof mm-hmm. ci wàllum ngëm mm-hmm. mooy ni nga fekk luy lor nit ki ci yoon wi nga dind ko mooy set setal mooy set setal kon mi ngi lay wax yow bul ci def luy lor mm-hmm. luy loree nga dindi ko bul fi def luy lor dëgg la kon loolu bu fekkoon ni ñu ngi koy doxee yaakaar naa ne président bi du woote ci leneen lay yëngatu ndax xam ne lii moom noppi nañ ci dëgg mais kon lu ñu war a bàyyiwaat xel la mooy foog ñu delluwaat ci lislaam te jullit bi bu ci nekk rek la muy bëgg mooy suñu borom bëgg ko عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا في غزوه خيبر يعني بي صلى الله عليه وسلم دا فو واخني صبح دي رايه بي دينا كو جوخ واجو خن دا فا بغ يالا يالا بغكو عمر بن الخطاب موي نتاي ني موسما ميبت يور نغور لودر كيرو غير دا فام بن ملوكان بو يعني بي صلى الله عليه وسلم تود موي كاي يور درابو بي تي خيخ بي يالا بغ نكو تي موم بغ نا يالا كو غا غيس ني لون دون خنتي ولا te alxuraan day wax ni sànq jàng nga ko bi ngay ibbi mm-hmm. inna allaha yuhibbu tawabin yuhibbul mutatahirin dafa bokk si juróom ñett yi alxuraan tudd ni ñooñu yàlla bëgg na leen mm-hmm. te kuy dox war nga fexe def loo xamante ni yàlla da lay bëgg mm-hmm. kon set gi boo ci nekkee suñu borom da lay bëgg mooy ku silwiise ku silwiise yàlla dafa bëgg ku silwiise loolu la bëgg mooy ni dañuy sañse te mbedd bi mooy catu ginaar setu ginaar mhm. dañuy sañse te mbedd mi duñ ko sañseel dëgg la yére yi ngay sol génn mu tilim mbedd mee ko tilimal dëgg la bu mbedd mi sotoon du tilim allahu akbar loolu lu ma ta bàyyi xel la la preuve dem am réew fii rek waaw ngaa sol benn yére fukki fan fukki fan waaw du tilim du tilim du poussière waaye fii moom mënoo ko looloo ko waral sañse bàyyi fa nga jëm nga xamante ni mooy tilimal séeréer moo koy seetal te defoo ko mu sañse dëgg la loolu bokkul ci maanute allahu akbar waaw kon loolu lu ma ta bàyyi xel la allahu akbar te imam Cheikh ba man damaa jàng ñaari xadis Oh. yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ngay wax ci walu ciet ba tudd wa seras ngeen bal ñu nak dañuy joxe misaal rek oh, wa seras euh, ngeen bal ñu oh. euh, yonent bi dafa téré won sahaba yi ne len bu ngeen lekkatee laaj sahaba yi bëggul mm-hmm. laaj bu len laaj bu len jégué sama jakkay manam parce que laaj dafa am xet mm-hmm. te l'islam comme que dafa bëgg set mm-hmm. rawatina fu ñuy rawatina ci neegu yalla subhanahu wa taala xoolal yonent bi bi lañ ko teree sallallahu alayhi wa sallam foofu leçon la bu rëy rëy rëy rëy yow mii julli si fexeel nga góorgóorlu sa kemti lay kattan yëri yi ngay sol nga bàyyi ko xel parce que bul xool sa bopp rek mais da ngay xool ña nga xam ne nii ñoom ngay jaxasool di julli beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne di joxe misaal ma jox leen benn misaal saxaaba yi ne ko bismillah mu ne leen kenn si yéen bu amoon benn piscine si buntu këram wala si biir këram piscine boobu mu fay sóobu juróomi yoon par bis ndax yaramam dana am tilim tontu bi mooy du am tilim kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jàngalee set léegi kenn xamul nu mu toll waaye booy xool environnement bi jënd mbuusum ndox naan na yur sànni jënd café si casse à naan sànni ñandu si mouchoir sànni mburu ma lekk nga ko moom jeex la ko lëmasoon muy ab kayit wala muy mus lu ma doon nga jël mbir sànni réew mi du ma sa jag kon yaakaar naa ne bu jullit ñi góorgóorlu woon ba xam seen diine si wàllu cet ragal naa ne environnement bi comme ni ko docteur waxee du jar président muy woote si wàllu social fekk day fekk ñëpp set lan nga si yokk docteur waa li ma ci yokk mooy lii docteur wax xam dafay jàll ci fi ñu ko soxla mhm. wax naa fi sànq. marché yeeg li ci aju lépp. Mhm. mais fi muy dugg nii. Mhm. di ko yokk mooy menace bi salaasalaam wax. sallallahu ci kuy lor dëkkandoo. dëgg la. man kaana yuminu billahi wal aaxir. Mhm. falaa yu'di jaarahu képp gëm ni bisa ngi ñëw di faatu ñëbul ci morgo bi. defar la génn julli la yóbbu la suul la waññeeku gëm nga loolu bu lor sa dëkkandoo te lor dëkkandoo gi gën a feeñ ci Sénégal fi ñu toll hmm. mooy sànnil ko loo xam ni mën na caa gaañu wala ay doomu gaañu ji wala ay gan yu fi mën a dugg wala mu yàq mbedd mi hmm. te wax na ko léegi juróom ñaar fukki daraja juróom ñaar fukki point ak ñett wala ak juróom ci ngëm yàlla bokk bu ci gën a kaw mooy laa ilaaha illa bi ci gën a tuuti mooy nga luy lore mm-hmm. nga dindi ko ki ñu la luy lore boo ko rombee dindi ko mm-hmm. xot bu teel jëlal mm-hmm. dañu la wax nga tuur garawaay ci ci ci mbedd ñoo nga jël weñ ñi nga doon liggéeyee ginnaaw bi nga tabax si kër bàyyi ko fa kam bi nga gas bàyyi ko fa dina ko wax Moustapha loolu sàcc regaar mu ngoog sàcc regard yi wala nga jël sa mbalit dugal ko fa xoolal ñaata nit ngay lor poto lamp yi ñu dagg lii fiil ah. yeeg waaw ah. di sàcc ak xoolal ki ñëw ki ñëw ki ñëw sàcc bi li yóbbu mhm. ñaata la lor bi kenn xamul ki ñëw jël xar mhm. ko ci biir kanéwu bi mhm. ñaata kenn xamul jël ay xeer fanaanal ko ñeenti fan bu juróom ba une semaine ñaata la te yooyu mooy li fi nekk. Mhm. am na su ma jumul soxna soo xamee si daan ñëw. Mhm. di xëy di defar jàkk ji. di di woor ci mhm. eh, bëccëg bi. di naafilu guddi gi. waaye daan loolu ay dëkkandoom. bi nga ko waxee salaasalaam kii de day woor guddi gi di day woor bëccëg bi. di naafilu guddi gi loo xam ne koy def. waaye da day lor ay dëkkandoom logg nag mën naa nekk tur mbalit mhm. mën naa nekk lépp lu mhm. yent bi wax fi naar safara la jëm la ilaha illa allah kon bu fekkee yaa ngi julli di ñaan di werd di def luy lor sa moo xam mbalit la moo xam oto bu paan la moo xam lu mën doon la jàppal ni si julli googu daanaka amatu fi njëriñ di fa vider ay douche di vider mhm. ak yeneen ak yeneen loolu man lay wax dànkaafu googu maanaam loolu rek. Mhm. dafay yàq jàmm yàlla. waaw dañuy wax ni di nga gis koo xamante ni dafay xëy julli ji fajar nekk ci kursam julli ji tisbaar di sarxe di def waaye bu bu ba guddi bu amee ñaari saaku cent kilos. Mhm. tiyaaba mhm. sol na ñett téeméeri bakkaar ci la lor nit lor xam nga lor nit ci mbarit mhm. ci lu koy gaañ ci luy dugg ci luy génn loola bakkaar bi dafay naaw di dem yàlla ci àll musal donc man loolu lay dànkaafoo mhm. nit ñi mhm. kon woote bi nga xam ne président bi woote na ko nañ jàpp ni ak jaamu yàlla ginnaaw nag bi nga defee li nga war a def ba pare wax nag ngay dem di wàlli fekk li nga war a defoo ko wallahi boo ko defee ak jaamu yàlla gis nga ñi nga xam ne da ngeen gis ñaari ci kër yi ci koñ yi ñi ñi defar ak di kii mal la ko wax foo fekk ñaari ko xamni li ñu war def moom kenn moko def ñaar ki dafa dafa ki dafa sof ak nag nagam ñepp leen di ko fi mhm. parce que lamuy def ci lu bax mom la ko sam borom di di di di di di barkel dundam mhm. kon mbir mi jamu yalla hmm li ci ciy aussi moy hmm ñi nga xamni aussi dañuy liggéey ci mbalit bi mhm. Moustapha ñooñu nañ leen nañ leen dimbali la ñi waroon gëna cher soldu ñom la ñom la war nek wallahi deug la li nga xam ne bëggoo ko sa buntu kër. bëggoo ko sa kër bëggoo mu faral fa kii ñëw di ko jël ak ay loxoom di ko nokki di ànd dem amaana sax mu feebar. te boo xoolee ñoo gën a néew di fay. ñoo gën a am jafe-jafe. la ñu grève. léeg si ñàkk fay. loolu it na ci nit ñi taxaw. Mhm. damay wàcc foofu dem ci mbindaan bi. Mhm. ki nga jël jàpp ne la. Mhm. te yow mi ko ndax da liggéey ñu lay fay. la mbindaan dara lu ko liggéey ñu lay fay. mooy yóbbu mbalit mooy defar duus mooy def nangam mooy def nangam mooy def nangam mais benn paal amuloo ko ci moom du ngeen bokk lekk du ngeen bokk naan ca waaño lay nekk yaa ngi nangam loolu tooñ la nañ ko bàyyi xel mhm. kon li ma a mooy mhm. mbooleem ñi nga xam ne nekk ci li nga xam ni pour askan bi la mhm. nañ leen jox seen seen seen aq ba mu doy nañ jox seen privilège soit muy gouvernement bi soit muy commune yi soit muy lu ma doon ma jàll foofu dem ci suñu jàkk yi ak suñu morgue yi ci la bokk de morgue yi waaw fi ñuy tëral bi pour ko pour denc ko waaw ban njàq nga fi gis mhm. ñu teg benn équipe boo xamante ni néew bu a àdduna mhm. bu ñëwee bañ laa dugal da nga indi certificat de mort ñu xam kii ci lan la faatu mhm. ban feebar moo ko rey am na ci virus yoo xam ni nit ki dina faatu mu ànd ak moom topp ko ba nangami ba nangami heure ba nangami fan kooku boo ko amee tey kii sax nga xamu ci dara amul amul jumtuwaay amul mat amul matuwaay. Mhm. bu ñëwee nu muy def. waaw ah, du ko mën a jël. Mhm. bu ñu paree kii ban feebar la indi ci morgue bi ndax bu paree feebar bi moo ko indi war nañoo jël yëre yi lëmas ko sol ay gants kenn du ko sànni foofu yëpp am na fu ñu ko war a yóbbu gis nga gis nga fu ñu aménagé. Mhm. na léegi ñii ñii yóbbu ci morgue yi seet ñi feebar fii lañ koy lakke gisagum nga ko ci Sénégal. te dafa ah dafa war am kay loolu kenn waru ko laal dama bëgg wax ni. Mhm. lii président bi woote. Mhm. nañ ko xóotal. Mhm. loolu laa bëgg wax. nañ ko xóotal mu gën a yaatu. parce que li ma wax nii benn la ci. nañ bàyyi loolu xel. gisoo ko ci benn jàkk. da nga ñuy indi néew buñ paree buñ paree la ñoom tax yëpp fa lañ koy bàyyi waa ku feebar la woon ku feebarul seen yoon ne ko ci. ka fay ñëw ñu ne ko yaa dañ lay fay nangam nangam mooy ñëw du yor dara bu ñuy affaire bi mën na ko jàpp la donc yii yëpp aussi mhm. mooy waa diine dañuy dimbali nit ñi te lii lislam moo ñu ko wax du dëgg am na ñoo xam mhm. mhm. te xam nga covid bi bi mu ñëwee am ñu ñaan sa nga néew yi da nga yaakaar loolu war na fee jóg déedéet loolu war fee jóg covid bi boo laalee mu wàll ba laal ba léegi am na feebar yoo xam ne mi ngi ci biir hôpital yi même li covid bi def lay def

ne leen danañ dugg ci biir kër yi. Mhm. bu ngeen demee na ngeen dugg ci duusu euh, kilifa gi. Mhm. dugg di nga ko nangu. déedéet. ko. déedéet. kan kan la war. borom kër gi borom kër gi la war. Mhm. soxna sa ak xale ya ak ñëpp. ñoom la war. état mën na mën naa ñëw ci koñ bi chaque jour. service d'hygiène chaque jour mu ñëw. déedéet. ñan la war kon responsabilité. famille famille bi dañ koy def. mbedd mi responsabilité. dañ koy def. Mhm. commune bi. Mhm. semence d'habilité dañ koy def. waa marché ba waa marché ba. waa jàkka ja waa jàkka mhm. ñëpp état bi ñu indi ay moyens. def. kon responsabilité ñoom ñëpp la. responsabilité partagée la bu ko nekk defee li nga war a def rek da dañuy noppal. macha allah loolu daal la a wax foofu. docteur. <laughs> li ma ciy yokk. Uh-huh. sànq imaam dafa wax lu am solo. Uh-huh. mooy ni seet seetal gi nañ yëg ni jaamu yàlla la. Uh-huh. li koy firndeel mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni ci benn xadis mm-hmm. ne nit dugg na àjjana mm-hmm. la ko waral moo di benn euh, euh, xaddami ko mm-hmm. comme nit ki xaxtani ko daal di koy tifli ci jàkka mu dindi ko soril ko ba keneen du takk keneen ah. loolu waral na mu dugg àjjana kon loo ci war a ki nga xamante ni téye ko ba du ko def fu muy loree nit ki kooku lan moo ko war a xaar kon loolu lu mat a lu mat a bàyyi xel la moo tax yonent bi sallallahu ci bàyyi xel bi mu walum cet képp la war. warul état rek mooy nit ñëpp la war. mooy daf ñu doon wax ni tey benn xadis boo xam ne mi ngi nettali ne. benn waay boo xam ne dara bala jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam am ñu ne ab jigéen. yonent bi toog ab diir gisu ko. bi mu laajtee ñu ne ko kooku faatu na. mooy ndax yéen da ngeen maa bëgg a lor. ku mel nii faatu du ngeen ma ko wax ci waxin. lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def. dafa dem ba ci bàmmeelam mu jullee ko. loolu mi ngi jàngal nit ki kii li mu doon def. nit deful lu ko gën lu rëy la lu rëy la mooy setal ba nga xamante ni feebar du am li olof di wax naan ni fagaru moo gën faju moom la arab di wax ne alwiqayatu xayrun min al ilaaj xam nañ ni tey tilimte gi nga xam ne mooy am ci société bi mooy waral yenn microbe yi di ñëw te bu ñëwee feebar am dëgg la l'islam bañ loolu am moo tax day wax ni lépp loo xamante ni lu saltale nañ ko dégagé mais yamu ca nañu indi lépp loo xam ne garab la ñu jëmbat ko yént bi sallallahu alayhi wa sallam waxul jëmbat leen garab waxul loolu mm-hmm. mais li mu wax mooy ni amul benn jullit buy dund ci kaw suuf mm-hmm. mu jëmbat benn garab mm-hmm. moo xam picc da cee lekk ak lu mën a doon lu dul ni sarax lay doon ca moom te sarax googu na xam ni suñu borom da koy yaral ndax yéen bi sallallahu wax nañu ci xadis ne nit ki day saraxe mën nga jël tàndana ma xar ko ñaar saraxe benn xaaj bi yàlla dala koy yaral muy jur di jur ba boo ñëwee yowmal qiyaama yow addunay tàndarma nga fay fekk yàlla ne la lii yaa ko moom nga ne ko mukk liggéeyu ma ko mhm. mu ne la bis sàngam la nga joxe woon laa la yaral mhm. kon nga déggee ci ne set setal mhm. ak def lu baax mbir la yoo xamante ni yàlla mën na la dencal tiyaaba ba keroog yowmal qiyam boo ñëwee mu jariñ la ci lu bari kon ni moo tax ni loolu dafa doon responsabilité képp koo xam ne yaa ngi dund ci société bi warul gouvernement. Mhm. gouvernement la koy mooy day orienté. Mhm. su ko defee nit ñi def. Mhm. loolu moo tax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam orientation ba mu def noonu. mooy dem jullee ci xabru kooku. mooy mi ngi wan saxaaba yi. ne leen kii la mu nekkoon lu baax la nit ñi dañ ko war a dañ war a fekk ci loolu. kon loolu. képp kuy dund ci société bi. war nga xam ne lii la yow la war. macha allah léegi imam Shayba ginnaaw taaliq docteur bu am solo bi léegi ñun naka la ñu war a mën a jëmmalee. woote googu nga xam ne président woote na ko moom lancé na te nee na bëggul mu yem fi dafa bëgg chaque jour chaque weer chaque at Sénégal di gën a set di gën a naat di gën a xeeñ lu neex naka lañ ko war a mën a jëmale suñu biir waaw nañ ko war a jëmale rek mooy gis nga mu nekk boo ko delloo ci docteur wax ne lii ak jaamu yàlla xam nga ak jaamu yàlla bu la kenn fayul ku lay fay yàlla sa moo lay fay mm-hmm. bu ku nekk jàppee ne lii man la war te bu ma ko defee tiyaaba laa ci am day nekk loo xam ni da nga ko def ak lan bànneex qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati wa mamaati lillahi rabbil alamin jàng te wa maxyaaya dafa mel ne ñu ngi si biir de ci la lépp dund dugg ci dund gi gis nga Moussa Ba nit diggante fi muy dunde ak fi muy dee ci lay lekke ci lay nané ci lay fajo ci lay baye ci lay tukkee ci émigration hmm bon lu ci nekk ko utul politique kooku mom la mo la yalla wax ci surtout surtout mulk mhm. le pouvoir bokk na ci aussi ñu ci wat hmm yar bu ñëk ba gis nga éducation civique hmm nit ñi xam ya xalé yi mag ci hmm bëgg seen réew mhm. bëgg ci cet. Mm-hmm. loolu dafa manqué. dëgg la. waxuma la mais dama ci kër yi. Mm-hmm. nit di nga ñëw ci dugg ci toilette. fekk mu am leneen. xam dangay ngay jël ndox rek sotti ko fa. Mm-hmm. mais doo ko def kooku yaruñ ko. te da ngay faj sa aajo pare. ah bien sûr. bàyyi fa kooku yaruñ ko ko keneen ñëw. donc éducation boobu. il faut mu ñu dellusi ko bu ko delloosee. génération montante bi day ànd ak mag mooy tax lii du dakk parce que lii warul dem benn fan ñaari fan ñu arrêté ko. bu ko defee mooy échec nañ. te tàmm nañ loolu de. te bu te buñ buñ wax gouvernement bi nag. nit ñi la. Mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi la de. dëgg la président bi mën na mën na mën na mën na chaque fois mu mu mu wàcc ñëw jël jël pelem di joxe exemple. déedéet amul jotam. soo baa léegi lañ ko sant. dëgg la dafa am lu ko war. Mm-hmm. mooy toog xool mbir mi. nit ñi lañ génn. beneen bi ci topp mooy. initiative biñ ñu jël. Mhm. jël armée bi boole ko ci set setal bi te armée nation. Mhm. lañ xam. Mhm. ni ñu war a demee liggéeyal nit ñi ci ci ci aar seen bakkan ci ay fital boobu am na gën a garaw mooy salte gi kooku aussi moo tax ni ñu génn nii vraiment maa ngi ko rafetlu. maa ngi ko rafetlu bu baax baax baax baax te ñoom d' accord nañ ci président wax na ko wax na ko démb. d' accord nañ ci donc bu jëlee ànd askan wi. booleeg éducation bi loolu dina nekk lu am lu am pérennité dina continuer dootul dootul arrêté ti mhm. parce que même bu nit ñi arrêté armée bi gën a continuer ASC yi ñu tàgge leen ci loolu jël sport bi soppi li fi nekkoon nawetaan yi mhm. mi ngi waaj ñëw mhm. nawetaan yi ñaata jeune ñoo ci nekk boo jëlee ñuy football ci kaw ak ñuy football ci suuf mën nga wax ni xaw na jege xaw na jege un

mobiliser euh, commune bi ñu ne ci mbalit mi aussi gars yi ànd ñoom jàppal def ko bu ñu ko defee rek parce que li nga seetal ba mu set. Mhm. weer bu ñëwaatee doo sonn. dëgg la parce que am na mhm. da da ngay da ngay faxas rek jëm waaw a tax affaire bi continuer quoi mais bokk na ci li nga xam ne tey ragal naa ni bu ci gouvernement mhm. jàppalee Sénégalais yi. cet gi ñuy woote dina am. mooy ne fexe ba canaliser koñ yi. pénaliser ko waaw am na solo ngir ni rawatina tey comme yenn dëkkuwaay yi ci ndakaaru ak mm-hmm. yeneen yi mm-hmm. ngir ni da ngay gis dëkkuwaay yu bari bu nawet ñëwee ngay xam ne kër gi setul dëgg la ndax foos yi génn yooyu te feebar yi mën a jur dafa mm-hmm. bari léegi bu fekkee ni tey gouvernement dimbaye na askan wi ci côté boobu tey da ngay gis ni cet gi mën na yomb beneen ba moo di man bu ma jëndee fii suuf war a tabax yow nga jënd suñ kër yi jàkkaarloo te mbedd bi ñu séparé dix la tey dañ ñoo war a farataal ci ñun ne yow boo tabaxee ba pare di nga war a jël cinq mètres yoo xam ne da nga koy karoo mhm. su ko defee suuf si mën na làqu mhm. kenn du ci sottee te ndox moo xamante ni buy tilim la dëgg la yooyu bu amee bu ko mhm. defee nga def ko sa kër di ko def ci biti bu yàggee barab boo dem rek nekk fa day day day day day day doon loo xamante ni lu mën a lu mën a nekk la euh, gis naa ni Sénégal li ma seetlu am na calte goo xam ne yenn sociétés yi nga xam ne ñoo yor wàllum cet gi ñoom ñoo koy sabab ah. tey demal marché du ma guma tudd yenn marché yi mhm. tey boo demee oto mbalit ba fañ koy teg mhm. fa nit ñiy jaay fala oto mbalit bi nekk mm. su ko defee fa la ñuy campé mhm. kay jaay toog ci ginnaaw pollu mbalit bi la ilaha illallah léegi xoolal loolu man jàpp naa ni bu fekkee ne oto mbalit day taxaw ak yu mel noonu war na mën a dégager wu ba dem foo xamante nii tey mhm. fu fu nit ñi nekkul la dëgg la nga xam ne du lor mhm. moom day dem jëlee mbalit ba nekk ci ñoom mhm. di ko indi fii waaye boo jëlee mbalit mi ci biir nit ñi indi war ko ci biir nit ñi mooy yow danga nga bokk ci ñi nga xam ne yaa waroon seetal mais yaa ngi yokk loolu lu war a jàngataat la la te boo xoolee bëri na ci marché yi ba léeg sax yow boo fa rombee war a jënd loo xam ne leer na la ki koy jaay lu baax mi ngi nii doo ko mën a jënd ngir ni fa mu toog la kooku tey barab bi mu toog mi ngi salte beneen ba mën naa mi ngi encaissé ay feebar yoo xam ne yëgu ko kon ragal naa ni loolu it gouvernement bu fekkee ni bàyyi na ko xel mm-hmm. dina doon loo xam ne dina jàppale askan wi lool ci ci côté woowu mm-hmm. yi yaakaar naa ni bu fekkee ni euh, concentré woon nañ ci te beneen ba it ñun ñi nga xam ne ñooy dund ci société yi ñu bàyyi mm-hmm. xel loolu ragal naa ni kon set gi ñuy woote mën na xëy am macha allah euh, imam Cheyba gis naa tamit jaaykat yi nga xam ne ni dañ jaay lekk kee ma ngay jaay restaurant kee ma ngay jaay forox caaye comme ni ñu koy waxee kee ngay jaay ndambe kee ngay jaay kii waaye loolu tamit état war na ko bàyyi xel parce que li muy dugal fii si ay maladie si ay feebar kenn xamul nañ toll te kenn kenn contrôle ko wala boog bi sévèrul dara dara dara dara fu neex waay jóge su raison bi dañ fay fees dell te lu nekk lu leen neex la ñuy jaay loolu tamit euh, jàpp naa ne yéen imaam yi hmm. war ngeen see mën a taxaw seetlu xool parce que tamit bu ñu set kay setal dafa war a wér. dëgg la kay setal. daa war a wér. dëgg la bu wérul du mën a setal. dëgg la naa loolu gis ngeen ko. waaw. Mhm. loolu gis nañ ko bu baax. Mhm. mooy li ma la mhm. dañuy feebar mais duñ yëg xam nga dafa dèjà li nga junj imaginer ki jaay ceeb ñu tudd ko forox caaye. forox caaye am lu ko indi. te yow yaa di jën ci moom. baat bi de moom day na ah, waaw. yow yaa ñëw toog boor toog toog di lekk. yaa ko tuddee lii. waaw ba noppi ñëw ne ko. voilà ayca bismillah. aywa xam xel nangu ko. waaw xel nangu ko de. su amoon sax ña fa nekk ñu mu ñu muy jaay. Mm-hmm. dajal dajaloo. dina mm-hmm. ko juróomi caay yu set wicc. <laughs> wicc muy awalante caay yi. utal ko kii defal ko ne ne ko nag mi ngi nii saaboo ngi nii. Mm-hmm. ñun dañ bëgg fu set. mais da da ciy kontaan. loolu def nañ te pourtant boo seetloo ni ko tuddee ni ko gars yi tuddee forox caayee jumuñu de. ban jum parce que caayee yi muy sol tamit ah, léeg-léeg. ba ban jum mhm. yeneen par yenn place yi restaurant yi. Mhm. da ngay dem ci garage yi. Mhm. ay Petersen ak ay nga dem toog di jaay maanaam fa toog. Ah, ndox may. subhanallah mais ña toog dafa dafa mel ni dañuy kontaan. Sénégal yi ñoo dem ba tàmm culture dund salte. xam nga pompier gi. bi ñu koy déplacé laa euh, bi indi boobu maraîcher. laa ni ndax yàlla. waaye la fa nekkoon yàlla bu nekkat fi amiin dafa nekkoon benn waar parce que dafa mel ni nit ñi dañu am culture maanaam ba yow bala ngaa kontaan nga lekk galax ndugu tufli sa café nga sànni ko maanaam dafa mel ni sax ñoom bu ñu nekkul ci loolu duñ kontaan parce que éducation civique moo am moo amul dëgg la loo mën a defar te amul suivi du dem donc loolu nga wax mhm. gouvernement am na ci part de responsabilité mhm. mooy service d'hygiène mhm. nañ leen yokkal Mm-hmm. seen i moyens. Mm-hmm. nañ yokk seen i mm-hmm. yokk seen équipement. yokk seen salaire. ba mu dootuñu soxla dara. xam ne kon bu ñu dugg gis fa lu ñu war a gis bu ñu la marqué amul intervention da nga dem fay. xam nga xam nga am na loo xam ne boo ko Sénégal defoon. Euh, par exemple léegi euh, comme Abdoulaye Wade ni xalaat. defoon Afrique fii mën na CAC. Mhm. xam nga lu CAC. déedéet citoyen aide citoyen. Mhm. citoyen mooy dimbali citoyen bi. Mhm. boo ñëwee tuur mbali foo ko war a tul. ñu ñu yóbbu la nga fay nga fay cinquante mille. oto boo xam ne da ngaa si sax dugg ci biir dañ la jàpp jàppale chauffeur bi nga dem fay cinquante mille. gis nga bu ñu ko defoon. léegi ñu normal léegi mu normal te te te te doo dóor kenn. dëgg la mag moom si poosam koo fekk ñu ne ko yow booy jaay li norme yi nga war a jaay. te pourtant tubaab bi noonu la ñu yaree seen i mag. mais bien sûr. seen i nit ñi si poos yi lañ leen yare mais c'est ça. ku def lii fay nangam. ngam na. bala nga ko def faaw nga xool sa poos. bu ñu ko defoon léegi léegi léegi léegi. Mhm. foo dem jëlee set. imaam ñu ngi ma signalé ne cinq minutes moo des xam naa boo doon tënk rek nga. waaw li may tënk daal dénkaane la. Mhm. dénkaane bi mooy d'après li ñu fi wax. Mhm. Moussa Lo buy tabax di kër na bàyyi xel toilette yi. Mhm. mën nga def juróom-benn toilette. te mhm. du jël espace. Mhm. parce mooy tax kër gi set. bi. li fi jot a nekk. mën nañ ko améliorer. yokk toilette yi. lu ñuy tabaxati. nañ xool toilette yi. man loolu laay dénkaane. bu ko kër yi defee. suñ jàkk yi aussi. bu ñu defee jàkk da ngay soror boo xam ne. mat na vingt cinq te amuñu ab ñetti douche lañu am. soror ban ban sens la. amul sens de. par rapport douche par bu fekkee ne yokk nañ ko ci kër yi. Mhm. yokk ci jumaa yi yokk ci institution publique yi. Mhm. loolu mooy commencement set. ku ñëw dugg. Mhm. gis nga màkk ni mu ni mu dee. ñaata fay daje. mais raar na nga gis ku fa problème toilette. déedéet. soo demee mi dañoo créé ay toilettes. ba demee màkk noonu. noonu. parce que ñun dañoo xam set dañoo xam ak ak toilette man daal loolu laay dénkaane di ko dénk sama bopp di ko dénk gouvernement di ko dénk ñëpp di leen gërëm leen sant leen di ñaan yàlla subhanahu euh, émission bi euh, ñu ngi koy rafet bu baax baax baax yàlla na si yàlla defal kàttan euh, dafa leen di ñaan nag sénégalais yi yàlla yàlla dafa jàmm amiin li ñu song muy air bu bees mhm. na ñëpp rafetal seen yéene mhm. ñu nangu suñu bopp mhm. ànd yéene bu rafet yenn yi nga xam ne day yàq nañ ko arrêté di wax lu baax di wax lu rafet di ko def di ko defante yàlla ñi wallu mhm. dafa naa ne pétrole bi nee nañ commencé na gën tuuti waaw ah, tey dégg naa ko tey waaw commencé na gën tuuti bu ñu yaakaar ne day day tëb rek Sénégal mel ni Paris mhm, mhm. ko liggéey sell daal yéene suñu aaditoro daana wax ne bu yéene sellee lu ñu jéem des na ko mën wallaay dëgg la kon nañ seen yéene yi mhm. yàlla yàlla fa jàmm macha allah docteur looy tàggatoo docteur waaw xam naa bala maa tàggatoo am lu ma bàyyi loo xel mhm. mooy ni ci wàllum cet gi mhm. rawatina lii jëm ci biir yi état war na cee jël matuwaay dëgg la dafa am yenn façon lekk wala yenn façon naan yoo xam ne ku pare pour jaay ko foog ñu jox autorisation boo xam ne moo lay may nga jaay ko rawatina li jëm ci wàllum yàpp ndax Sénégal gis nañ barab yi nga xam ne dañ koy jaayee ah. cet ga nga ko war a soxla a Euh, barki démb dama jàngale ba pare ànd ak sama élèves ma ne kaay ma pee leen ndékki ñu dugg ban barab moo neex ñu ne ma barab sàngam mm-hmm. ñu dugg toog mm-hmm. waa jay jaay ñu laaj ko ana diw mm-hmm. mu diw dellu na dëkk sàngam biti Sénégal la mu xanaa kon lii lay liggéey mu ko de lii amul foofu Sénégal rek la am ilaha illallah bëgguma tudd réew wala tudd leen mais nii laa ko déggi moom wax ko ma dégg mu ne lii Sénégal rek la am amul fële moom mi ngi ci leneen kon nga déggee ci ne am na loo xam ne day wàllan ci ñëw te buñ ko saytuwul mën na indi yeneen kon loolu lu ñu war a bàyyi xel la ay étrange ko fi indi ñoo koy indi mhm. loolu lu a bàyyi xel la ko wax mën nga ko wax mhm. jàpp ne leneen la mhm. ci nekk mën na liggéey mais dafa am loo xam ne foog mu tegu ci yoon dëgg la rawatina yenn lekk yi nga xam ne xale yi ñoo koy gën a lekk surtout yi saf suukar ngeen ni ñam buy saf suukar nañ koy defaree xamoo kon loolu lu ñu lu mat a bàyyi xel la loo xam ne bu fekkee ne état mi ngi koy saytu xam naka lay duggee naka lañ koy jëlee Mm-hmm. ragal naa ni mën na doon loo xam ne day dimbali nit ñi ci wàllum cet cetum biir ak cetum biti mm-hmm. dañaan borom bi subhanahu wa taala cet gi ñuy woote ñun ñu jiitu ci yàlla defal ñu mu yomb mm-hmm. ba lañ ca bëgg mu am wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf docteur Mouhamed consultant jërëjëf imam Chaybatul Hamdi kontaan nañu ci encore vraiment indiwaat na fi xam-xam indiwaat na fi gëstu kon mbokk yi wareefu jullit fii lay teg loxoom incha allah taala ba beneen émission ak beneen gan ñu ngi sant ñëpp di sant caméraman yeeg technicien yeeg yëpp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu ta nangul leen seetal réew mi jàppale ñi nga xam ne ni ñoom ñooy njiitu réew mi si seen woote googu ba sénégalais yëpp incha allah àgg foo xam ne dañuy tëkkaleeg réew yi nga xam ne ñoom ñoo gën a set wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.